asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Alpha Ousmane si nekk en tout cas homme d'affaires ku ñu ràññee ci mbirum pétrole ak gaz mu am bëri expérience lool fii ci Afrique mu visité dëkk yu bëri dans le cadre de son travail mu nekk tamit sénégalais bi nga xam ne mbirum politique da ko intéressé. ba tax na samp na en tout cas dem foofu ci commune bii di Guinguinéo muy laajte mairie boobu monsieur Alpha buñ la doon laajte globalement kan mooy Alpha Ousmane si nga war a wax ci sa bopp ci mbirum compétence sa jaar-jaar ak Sénégal lan ngay tënk en quelques secondes. waaleykum salaam euh, Cheikh Tidiane ñu ngi nuyu seen euh, auditeurs yi ak seen téléspectateurs yi. Mm. ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi topp Sénégo sur les réseaux. Euh, di leen jaajëfal bu baax a baax di leen nuyu ci bis bu tedd gi tey euh, di am mbégte ñëw fii euh, saafanteeg yéen man nag doomu réew bi la yàgg bitim réew nekkoon fa jànge fa waaye tamit liggéeye fa ni nga ko waxee rek ci mbirum énergie ak ci mbirum tamit commerce li ñuy wax commerce international. Euh, liggéeyal ay ay ay société nag yoo xam ne société internationale nañu ay multinationale waaye liggéeyal tamit sama bopp ñibbi si fii Sénégal 2013 euh, mm. euh, teg fi benn société boo xam ne ci wàllu finance lay yëngatu muy si investment benn société familial mm. lii mu jur nag bi ñu demee ba Sénégal tamit dugg mel ne yenn réew Afrique yi tamit ci wàllu pétrole ak gaz ñu jublu ci tamit euh, di ci liggéey euh, di sant yàlla ci ci loolu ndax loo xam ne euh, ëllëgu Sénégal hmm. lu bëri tey xam nañu ne ci wàllu pétrole ak gaz lay jëm d'accord voilà loolu am na solo Sénégal mu nekk réew moo xam ne c'est un pays sous-développé ñëpp xam nañ ne dëkk pour mu mën a dem baax na mu moom boppam ci mbirum énergie mbirum électricité ak yi mel noonu. Hmm. Euh, ñu toll foo xam ne président de la république lancé na des projet pour l'équité territoriale de l'électrification de l'électrification rurale euh, ndax tey yow en tant que en tant que intellectuel en tant que borom xam-xam boo xam ne sa xam-xam màcc na dem ci wàllu woowu fan nga jàpp ne Sénégal bu fa jaaroon tey dinañ mën a am souveraineté énergétique. waaw euh, loolu dafa am solo trop ndax électricité énergie ci boppam. moom moo lay indil mooy base développement ku maîtriser sa énergie war a mun sa am sa énergie à un boo xam ne euh, méngoo na ak li nga xam ne population yi mun nañ ko euh, utiliser méngoo na ak tamit li nga xam ne société yi mun nañu ñëw installé wu ci ci sa réew di nga mun a gis sa dëkk euh, prospérer mm. donc ñun tey ñaari problématique la ñu am benn problématique bi mooy li ñuy wax accès à l'énergie à un prix euh, qui soit euh, raisonnable mm. beneen bi tamit mooy problème wu mun am énergie boo xam ne dinañ ko am ba société yi industrie yi dinañ mun ñëw installé wu di produire di employé ay doomu réew bi euh, di di di mun exporté tamit éventuellement ñu consommer localement mais ñu mun a exporté tamit te loolu tamit dafa laaj ñu ñu ñu xool nu ñuy amee énergie boobu donc loolu mooy li nga xam ne war nañ ko saytu fu mu nekk nii. Hmm. léegi nag nu ñuy def ba am loolu. bëri na ay programme yu ñu fi teg ASER a ngi fi léegi ba léegi l'agence de sénégalaise de l'électrification rurale ñuy xool nu ñuy def ba électricité bi yëpp électricité bi ñu am ko pour doomu Sénégal gi yëpp. Hmm. parce que loolu tamit euh, xam nga nit ki boo amee électricité sa kër. boobu la sa xale yi di mun a jànge mhm. suñu hôpitaux yi pour ñu mun a euh, faj suñu malade yi électricité daf ci daf ci daf ci bokk tamit mhm. ak yeneen ak yeneen bu ñu demee sax ci wàllu transformation bu nga xam ne ñi ngi koy wax ne dañu war a transformer nos produits ko lépp loo gis daal énergie mooy base bi donc dañ ci war a liggéey xam naa dinañ ci dellu si si suñu waxtaan mhm. yàlla baaxe nañu euh, ay ressources surtout en gaz nag parce que gaz bi moo ëpp solo sax pétrole bi. Mhm. boo xam ne buñ ko jaarale ci yoon gëm naa ne war nañu mun a am li nga xam ne moom lañu ñu mooy une électricité à un bas mhm. est-ce que Sénégal mu dem tamit euh, mu accès son programme pour mu mën a en tout cas réussir li nga xam ne projet d'électrification universelle la. est-ce que jaadu na tamit ñu yemale seen orientation kese kese kese ci mbirum pétrole ak gaz dëkk la boo xam Sénégal dëkk la boo xam ne naaj bi bëri na fi lool en plus ndox mi courant d'eau yi bëri na fi est-ce que bu ñu diversifier woon compétence wala ressources yi du ñu gën a amal njëriñ wala du gën a accélérer le processus pour une électrification universelle. non absolument absolument mais foog naa loolu sax ñi ñi ngi ci. Hmm. boo gisee Sénégal tey. Euh, en termes de production installée tey am nañu loo xam ne euh, dëkk yu bëri waxuma la dëkku Afrique sax mais yu bëri ci àdduna gi amuñu ko. Mm-hmm. ñun tey boo jëlee en termes d'énergie renouvelable maanaam énergie bi nga xam ne mi ngi jóge ci naaj mi ngi jóge ci ngelaw mais tamit mi ngi jóge ci suñu barrage hydraulique yi. Mm-hmm. am nañu lu ëpp 30 pour cent ci suñu capacité installée muy nekk 350 euh, mégawatts à peu près. yoo xam ne ci foofu la jóge donc ñun xaaruñu sax pétrole ba gaz bi ñëw pour def li ñu wax transition énergétique boobu ñu mu doon nag recommandation boo xam ne COP COP 26 waxoon na ko mais ñun dañ leen leen jiitu ci loolu. ah Sénégal Sénégal donc loolu man dama koy tàmm di wax di ko faral di wax nit ñi il faut aussi que ñuy mun a célébrer yi nga xam ne mooy suñu ay euh, ay jéego yi nga xam ne def nañ ko te nit ñi di ñu ko ràññee. Mm-hmm. donc euh, loolu ñi ngi ci wax nga dëgg munoo di sukkandiku ci pétrole ak gaz rek pétrole ak gaz dafa di ay énergie yoo xam ne day jeex mm-hmm. yi nga wax noonu noonu li ma wax léegi euh, éolien bi solaire bi hydraulique bi énergie yoo xam ne mu ñi ngi fi la mooy li ñu waxee énergie renouvelable mm-hmm. donc loolu tamit daf ci am solo mais pétrole ak gaz bi tamit nañu waxante dëgg moom surtout ni mu ko waxee woon gaz bi moom la mun a indil énergie boo xam ne euh, à bas la mm-hmm. donc loolu ñoo ngi dem ci biirum intégration régionale sous régionale ainsi de suite xam nañ ne boo jëlee Guinée Mali Mauritanie ak yooyu euh, Gambie parce que le fleuve Gambie xam nañ ne mhm. mu ngi am capacité de drainage bu am doole mhm. bu ñu ko est-ce que bu ñu demoon vers une intégration pour l'énergie dans le cadre de la sous-région ouest africaine est-ce que jàppoo ne loolu moo dina bokk tamit ci loo xam ne dina may dëkk Afrique yi ñu am benn partenariat énergétique boo xam ne dafay mën a impacter ci dundinu askan wi ci zone bii nii loolu dafa di lu am ba pare xëy na ni ñu koy utiliser moo doyul. Hmm. boo gisee tey am nañu benn organisme bu tudd OMVS. l'organisme de mise en valeur du fleuve Sénégal. Hmm. OMVS tey mi ngi dajale ay dëkk dajale euh, Guinée dajale Mauritanie dajale Mali dajale euh, Sénégal. Hmm. Euh, ak Gambie yoo xam ne tey OMVS mi ngi produire à partir des fleuves yi nga xam ne ñoo nekk ci zone bi. di ko di ko di ko partager entre les pays membres de l'OMVS mhm. c'est un c'est exemple d'intégration OMVS mhm. mais kiiwuñu ko fësaluñu ko d'abord un mhm. te xëy na mun nañu gën a yokk capacité OMVS beneen bi au niveau de la CEDEAO am nañu lu ñu wax le West African Power Pool mooy euh, dañu am benn kuréel boo xam ne ñu ñoo war a bokk benn marché boo xam ne ñu ñoo war a bokk électricité bi ku produire lu en excès nga war ko mun ci verser ñeneen ñi wut ñu mën a ñëw jël. am na nag yenn yoo xam ne yenn ajustement yoo xam ne war nañ ci war nañ ko def. pour boobu euh, kuréel googu gën a efficace. waaw par exemple gis nañu les pays maghrébins dont le Maroc ils ont réussi pour le solaire par exemple. Mhm. est-ce que c'est pas bon que tey ñu accès foofu tamit à 100 pour cent wala sax à pour pourcentage élevé pour ñu mën a profiter am ci courant bu baax a baax. waaw mais xam nga moom laa lay wax ñun tey Sénégal li ñu jot a def. ci ay at yu néew. ci wàllu solaire bëriwul ay dëkk yu ko def. Mhm. mun naa ne en Afrique au sud du Sahara ñun ñoo ciy leader. ci wàllu en terme de production de solaire ñun la. ah bon Sénégal la il ñu xam ko. Maroc mais ñu bëri xamuñu ko ah. parce que souvent moom laa gars yi interagir dañuy xamal ne non bàyyi ngeen fi solaire beeg ak éolien beeg ngeen di insister sur le gaz et le pétrole alors que Sénégal mu ngi def jéego yu toll noonu. Sénégal la nga ciy def nee naa la bu ñu éolien bi. parce que mm. on a la centrale de Taïba Ndiaye. Mm. Taïba Ndiaye bi nga xam ne tey mu ngi am capacité production de cent cinquante mégawatts. Mm. te lay wax nga dem seet nga dem foofu boo demee euh, zone bi ñuy wax Mboro di ko fa gis suñu suñu suñu suñu centrale solaire yi elles sont installées je que la première centrale solaire bi ñu installé woon. bu ma juumul 2017. la woon am na am na boobu première bi Boxol la woon. ba xool la woon donc ñun ñi ngi ci Sénégal daf ci nekk waaye nag li mu lay wax tamit euh, énergie renouvelable tey ci dëkk bu mel ni Sénégal mënul nekk cent pour cent mm, mm. parce que énergie renouvelable dafa am coût énergie renouvelable lu mel ni euh, solaire solaire solaire mm-hmm. il faut ñu comprendre aussi que solaire day jël espace bu rëy mm-hmm. parce que panneaux solaires yi ni nga koy installé ci ay hectares ki hectare la mm-hmm. beneen bi mooy le problème du stockage énergie euh, solaire énergie éolienne si ay énergie par intermittence la mooy mm. naaj bi bu ñëwee di nga am énergie ngelaw bi bu ñëwee di nga am énergie éolien mm. stockage bi ça coûte cher mm. tey les technologies yi nga xam ne moom mooy lay permettre nga stocker énergie bi pour boo amul naaj wala bu bu ngoonee wala bu ngelaw bi wàccee nga mun a continuer am énergie. Mhm. Euh, li muy laaj ci investissement. diis na mais ñi ngi ciy liggéey. Mhm. gouvernement baa ngi ciy liggéey ak ay solution peut-être yu bees yoo xam ne mun nañu kii kii stockage boobu. d'accord mais en attendant. Mhm. suñu infrastructure aussi parce que bul fàtte de Sénégal dafa am fu mu jógee. suñu centrales yi Sénélec tey moo am l'exclusivité de la production électrique Sénélec centrales yi ay centrales fuel la woon. qui est très polluant. mais ñi ngi def ay jéego pour transformer centrale yi ñu def ko centrale au gaz surtout que comme dinañ ci waxtaan xam naa dinañ ci ñëwaat Sénégal dafa war a nekk pays producteur de gaz ñu war a utiliser suñu gaz pour mm-hmm. produire ko mm-hmm. donc loolu d'accord euh, ñoo ngi dem ci loolu tudd nga ko déjà euh, Sénégal bientôt dina nekk un pays boo xam ne dafay dal di produire pétrole ak gaz gaz bi surtout defe naa amal nañu solo gis nañ président de la République muy insister que les produits fossiles dont le gaz ak euh, euh, le pétrole c'est pas un danger pour l'être humain par en répondant à quelques interprétations euh, par rapport à aux partenaires occidentaux est-ce que réellement production gaz ak pétrole mën na am ay impact yi négatif euh, dans le cadre de la santé des populations xam nga loolu Cheikh Tidiane dafa di question boo xam ne mun naa ne au niveau international déjà évacuer nañu question wu impact euh, des énergies fossiles sur le changement climatique hmm. mooy maanaam jàpp nañu ne énergie fossile yi hmm. euh, notamment pétrole bi parce que dañ gaz ak pétrole yi faut nga différencier ko am na impact ci changement climatique yi nëpp nangu nañ ko kenn weddiwu ko waaye benn bi mooy gaz bi euh, moo gën a prop que pétrole pétrole bi. Mm-hmm. déjà mm-hmm. donc gaz ak pétrole yemuñu ci loolu. Mm-hmm. beneen bi mooy ñun tey suñu impact parce que ñun on n'est suñu impact mu mënuñu ko yemale suñu impact ci changement climatique yi mënuñu ko yemale ak yeneen réew yi nga xam ne. ñoom egg nañ foo xam ne toll nañu foo xam ne seen. Euh, euh, production seen production notamment les gaz effet de serre. ak ñun yemul mais loolu dafa fekk ñu egg ci niveau de développement moo leen ko moo leen ko jox. Hmm. tey nag ñoom bu ñu wëlbatikoo ne léegi ñun ñëpp ñoo yem. yéen da ngeen di. arrêté euh, wala ngeen moytu kii bi ba pare bàyyi leen fi ngeen nekk. Uh-huh. utul ñu lu ñu ci jàppale. en réalité loolu bokk na ci li leen développé. mais mais mais loolu moo leen indi fi ñu toll nii. wax naa ko bi may tàmbali énergie c'est la base de tout. Hmm. ñoom dañuy dem ba maîtriser seen énergie. Hmm. ba xool yeneen énergie yi nga xam ne sax notamment l' énergie nucléaire mm-hmm. ñu toll ñu fu ñuy amee énergie nucléaire mm-hmm. toll ñu fa mm-hmm. mais bu ñu eggee ba foofu léegi wëlbatiku ne leen léegi yéen ñun ñu ñuy def ba egg fii <laughs> ñu yéen waru leen fa jaar ba egg fa ba pare <laughs> ñun ñoo bokk climat bi parce que <laughs> àdduna gi yëpp ñun ñoo bokk climat bi loolu dëgg la mais ñoom li liñ ciy def ci euh, effet gaz à effet de serre ak ñun yemul d' accord loolu loolu am na solo acteur politique nga naturellement même si ah, ràññewuñu loolu trop trop ci loolu parce que yow da nga nekk ci projection développement la politique du concret Euh, les collectivités territoriales en Afrique particulièrement au Sénégal ni muy doxee ak l'acte trois de la décentralisation boo xam ne dafay jox collectivités yi seen une certaine indépendance par rapport au recouvrement yi nga xam ne moom la ñuy def pour mën a dérouler seen petit programme yi à l'interne est-ce que tey collectivités territoriales ni ñu bindoo Sénégal yow jàpp nga ne déjà lu baax la wala su baaxul sax kër ma lan lañ ci mën a dolli pour que mu gën a am impact ci nekkinu askan wi waaw loolu moom dam ci sawar torop parce que dafa di lu ma ñor man Guinguinéo mooy sama dëkk mooy sama dëkku cosaan euh, ma bokk ci conseil municipal bi depuis 2014 di nuyu nag au passage population Guinguinéo yi euh, di nuyu suñu kilifa diine yi foofu ak suñu kilifa aada yi foofu di nuyu ñëpp di euh, dëkk boo xam ne tey dañu dem ba Guinguinéo dafa dem ba mbir yi daal dematul ni mu waroon demee. Mm. parce dëkk bu mel ne new historiquement chemin de fer bi moo ñu doon dundal. Mm. chemin de fer bi moo tax ñu bëri jóge ñi nga xam ne Mali la ñi nga xam ne euh, même au sud du Sénégal. sous région bi fu nekk. ñëw euh, installé waa new am nañu sax koñ boo xam ne campement lañ koy wooyee xam nañu ne foofu ay cheminots ex cheminots doomu cheminots ñoo fa dëkk. Mm. mais tey new dem na ba taxaw gis nga nag pour sa question bi mooy maanaam collectivité territoriale yi de euh, acte trois de la décentralisation bi mu ñëwee ñu jël neuf compétences yi nga xam ne dañ ko transféré euh, collectivité territoriale yi ba léegi taxul collectivité territoriale yi en tout cas pour ce qui me concerne Guinguinéo war a mun am revenu yoo xam ne doy na pour ñu mun a def ay dépense d'investissement yi même dépenses de fonctionnement yi. Mm-hmm. ñun li ñi nga xam ne moo ñuy euh, téye gée ngi neew c'est les euh, fonds de concours ak fonds de dotation yi. Mm-hmm. te loolu boo jëlee nga jël frais de fonctionnement yi fay salaire yi. Euh, kii bi daanaka jeex na voilà mm-hmm. léegi nag yaa a y a des y a des de revenus yoo xam ne mën nga ko ci am am nañu marché boo xam ne mi ngi fonctionner foofu donc il faudrait que marché bi ñu gën ko optimiser. il faudrait que ñu mun bénéficier de yenn revenus yi nga xam ne mun na jóge ci publicité bi il faut surtout surtout surtout il faut que suñu collectivité yi mun commencer fonctionner euh, waxuma comme ay entreprise parce que collectivité mënul fonctionner comme une entreprise mais ñu mun attirer ay investissement mmh, mmh. il faut que nga am ay ay ay ay responsable de collectivité yoo xam ne war nañu mun a dem jëli ay investissement indi leen ci seen gox parce que investissement yooyu moom mooy générer xëyu ndaw moom mooy indi euh, yenn besoin en infrastructure yoo xam ne ak sa partenaires yi mun nga ko mun nga ko fa def donc waruñu en tant que collectivité et c'était tout l'objectif de l'acte 3 di xaar rek ci état central bi mu ñëw defar yëpp hmm. état bi dafa am ay pouvoir yoo xam ne pouvoir régalien la yoo xam ne ñoom ñoo ko kii wax nañ ko ci wàllu énergie énergie bi état bi moom moo la mun a ñëw fournir la une énergie suffisante hmm. ak coût boo xam ne à bas coût euh, lépp lu jëm ci tali yi tali yi tamit yoo xam ne xam nañu ne état mais yeneen yi dafa laaj ay doomu gox yi dafa laaj responsable yi. Mhm. ñu mun jël seen responsabilité tamit ñoom pour mun attirer ay investissement mais loolu pour mën a nekk il faut que quand mu nekk kenn koo xam ne quand am na possibilité di dem di ñëw di trouver ay partenaires di leen andi. waaw loolu moom loolu moom mhm. euh, gis nañ ko sax xam nga loolu. c'est loo am nañu ay exemple yu taxaw fii euh, Sénégal yoo xam ne ay élus ñoom ñoo dem indi mais am na ay élus yoo xam ne indi nañu ay milliards ci seen ay communes. Mhm. yoo xam ne bu dul woon ñoom. Mhm. ak seen euh, seen pas-pas. Mhm. ak ni ñu ni ñu mën ay liggéey. loolu du am ci commune bi am ci commune bi. loolu nag loolu nag dafa di loo xam ne. dañ ci war a insister. mooy formation élus yi ak vision bi nga xam ne élus yi war nañ ko mun a am. beneen bi mooy aujourd'hui tey dañu toll foo xam ne y a les techniques modernes yoo xam ne moo lay permettre nga communiquer war nañu mun sax suñu collectivités yi ñu mun am ay collectivités modernes en termes de d'infrastructure ci wàllu internet bi pour mun a communiquer avec le reste euh, du monde mm. suñu conseiller que euh, mairie yi war nañ leen mun a équiper avec des systèmes de euh, vidéoconférence mm. pour ñu mun a comme ça boo tollee sax si si sa mairie gee ngi neew war nga mun a am benn système visio vidéoconférence boo xam ne mun nga connecté woo euh, ay mairie États-Unis mairie France. waaw mairie en Asie. boo toolee foofu rek gis nga période bu ñu jógee nii. Mm. mooy période du mbas bi. am na ñu bëri man ci laa bokk ñoo xam ne da nga doon liggéeyee sa kër ngay toog mais tu es connecté au du monde. Mm. parce que noonu la. Euh, jamono noonu la àdduna di doxee mm. léegi. te foofu la ñu toll. donc yooyu bu ñu ko mënee indi ci mairie bi war nañu mun ci effort bu ndaw. war a mun am ay résultat yu am solo. dëgg naa sax benn borom xam bi doon wax ne jot na sax ak l'acte trois de la décentralisation. Hmm. communes yi war nañu mën a am seen système de téléphone téléphonie interne. Hmm. maanaam numéro yoo xam ne ci biir commune bi lay yem ngeen di wootante. Hmm. kuy jënd kër di jënd. ainsi de suite quoi loolu yëpp mën na permettre les communes ñuy am euh, ay sources de revenus te soxla na même compétence tey parce que suñu localité yi. war nañu mën a bàyyi ay yaama neex mooy falu ainsi de suite il faut que nit ki di mën a compétent am ouverture xam ne àdduna di doxee xam qu'est-ce que le monde a besoin aujourd'hui pour que nit ñi man ko jëfandikoo tudd nga léegi train ñuy dem ci inauguration lii di terre ñu bëri jàpp ne tamit terre bi c'est pas une priorité ainsi de suite wala sax nécessité la mais du priorité ndax mënoon nañu investir investir dans d'autres secteur même si euh, le pays a besoin quand même d'aller de revenir est-ce que aperçu boobu nga am. waaw train moom euh, dafa di loo xam ne ci bépp réew. Mhm. mun naa ne dafa am solo. Mhm. en termes de mobilité. pour euh, parce que moyen de transport de masse la. Euh, et en termes aussi économique ñun Sénégal suñu position géographique def na ñu ne ñun waroon nañu nekk le principal pays avec le meilleur réseau ferroviaire waxuma euh, juste l'Afrique de l'Ouest mais peut-être même de l'Afrique en général. Mm. Euh, TER bi nag moom dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu parce que avancé la dëkk da ngay gis nga dëkk da nga war a sukkandiku ci benn vision nga mun a avancer donc TER bi ak lu mu metti metti ak euh, jafe-jafe jafe-jafe yu mun munti am mhm. ba léegi c'est une avancée pour le pays mi ngi mel ne suñu aéroport euh, aéroport international Blaise Diagne bi yàgg nañ ci mais mujjee nañ ko inauguré. waaw tey dëkk yu bëri ñu ngi ñuy ràññee man samay gan yi bu ñu ñëwee dañu naan ah yéen seen aéroport bi moom. macha allah macha allah am na solo. bu ñu ko mm. comparé ak yeneen aéroport africain yi. Mm. Euh, TER bi tamit xam naa ne suñu mbokk yi nga xam ne ñi ngi dëkk dans les banlieues euh, di dem ak di ñëw bas bu ñu ko tegee dina leen yombal seen seen mobilité. Mm-hmm. donc dëkk da ngay nangu. di avancer dafa am dafa am benn période bu xaw a metti boo xam ne di nga ci nekk mais bu tànk yaa ngi am foo jëm rek di boo ci eggee dina dina yombal mbir yi. Hmm. mais nag damay lancé un appel euh, encore au gouvernement parce que ñun comme wax nañ ko géngi neew. Hmm. train bi mu ñu doon dundal dakaar léegi ñu ngi seet ni ñuy tegee Dakar Tambacounda yi hmm. dafa di loo xam ne dañ ci war a jublu. comme TER bi léegi alhamdulilah. dina daw ngi waaj a tegu ci raay bi ba daw. <laughs> ñu war a jublu beneen projet bi euh, may nuyoo passage le secretaire d'État au réseau ferroviaire di sama mag euh, Mayacine Camara di nuyu directeur euh, chemin de fer du Sénégal Kibili Touré di wax ne soxla nañ ko. te xam naa ne ñi ngi ci liggéey xam naa ne su instruction. déjà du président de la République dina dem Thiès Mbour. waaw dina mm. dem cees Mbour. war a continuer ah bu demee Thiès bu te eggul new moom new moom dafa di loo xam ne moom ñun dañ ko soxla parce que day continuer dem Guinguinéo war a egg ba Tamba est-ce que c'est pas là toute l'importance toute l'importance di ci critique yi parce que man dama bokk ci ñu gëm ne luñ dugal yëpp ci terre bi bu buñ hmm. ko njëkkee woon dugal ci train mu jóge Ndakaaru Ndiaye passant par Guinguinéo dem ba Tambacounda dem noonu Ziguinchor avec des trains intermédiaires yi nga xam ne du train yi fi nekkoon temps colonial mais eggul ci catégorie wu terre mais mu nekk des trains intermédiaires yoo xam ne gaaw na mu traverse le pays est loolu bu jiitu woon c'était pas un investissement plus rentable que le terre. xam nga euh, Kandé li nga li ñu war a gis. Hmm. en tant que citoyen sénégalais en tant que citoyen du hmm. mooy benn benn benn investissement terewul nga def beneen investissement. ñun nag souvent sous développement bi mooy tax ba dañuy jàpp ne boo dugalee ci TER bi rek waroo dugal ci ci beneen bi mhm. en réalité euh, le problème mu chemin de fer Dakar Bamako bi ak problème mu TER bi c'est deux problèmes différents mm. nga parce que TER bi TER bi vision président Macky Sall la mhm. mu teg euh, Diamniadio dafa lu am solo ñëpp di ko gis tey foog naa de ñii nekkoon di wax ne jam sax di critiquer jamyaajo tey gis nañu jëriñu jam ñaajo boo boo boo boo gisee boo gisee infrastructure yu fa nekk tey euh, ñun encore une fois am na dëkk yu bëri yoo xam ne raw lañ leen ci loolu mm-hmm. problème mu Dakar euh, Bamako bi nag c'est que ñaari dëkk ñoo ko seqoon muy mm-hmm. Mali ak Sénégal ñu nekk ci di war a xam nuñ koy financé war a xam tamit ban type de rail la sax parce que dafa am rail écartement standard ak rail écartement métrique. Mhm. loolu moo indi peut-être retard yi nga xam ne am nañ ko ci. li may li fi fi mu lay fekk see rek mooy li ma wax rek mooy te train bi Dakar Bamako bi non seulement dafa am un impact sur la dafa am un impact. Mhm. la la la la la progression économique. Mhm. ci suñu croissance économique. parce que tey ñun euh, le poumon. de, de, de, de, l'économie sénégalaise, c'est le port autonome de Dakar. Mm. port, may nuye au passage d'ailleurs moo frère sama mag sama xarit euh, Ababacar Sédir Bey directeur du port autonome de Dakar mais bu ñu de dekkali woon train bi fu mu nekk nii dina désengorger port autonome de Dakar dina augmenter suñu compétitivité par rapport yeneen port yi nga xam ne ñi ngi xëccoog ñoom mm. dans la sous-région et suñu mbokk Mali yi dina leen permettre ñu ñu yokk seen volume bi wala en tout cas marchandise yi mun a egg parce que ñun tey boo xoolee soixante-quinze pour cent importation Mali yi port autonome Dakar lay jóge ñu mm. teg ko ci tali yi mm. mu indi aussi ay problème d'insécurité et je crois que euh, président bi loolu yëg na ko parce que accident yi am ci route yi Euh, nit yi di ci ñàkk seen bakkan bu ñu amoon train dina ko wàññi bu baax waaw ah, parce que le Mali quand même seen lépp fii lañ koy jëlee donc voilà gis nañu sax suñu tali yi nu ñu yàqoo ndax charge yu diis yi mais voilà hmm, donc ñëpp nangu nañu de hmm, hmm. train bi dafa di loo xam ne dañ ci jublu te yaakaar naa ne euh, ñii nekk ci euh, dossier yooyu ñu ngi ciy liggéey pour ñu gaaw ci am ndam dina am solo mënuma recevoir fii ku mel ni yow tamit te duñu waxtaanee mbirum élection élection municipale je pense qu'on a déjà abordé la question euh, le, le la question du troisième mandat bëri na lu muy ñëwaat ci gémmiñu acteur politiques yee des acteurs de la société civile Eh, yow <laughs> ban jàngat nga ci am jàpp nga ne président da cee war a prononcé wu directement leeral nit ñi <laughs> wala war jàpp nga ne. xam nga yow <laughs> yow fu mu nekk nii yaa yow sa bopp yaa ngi rek yéen journaliste yi da ngeen da ngeen bugg ay ay ay ay sens ay sensation da ngeen bugg du sensationnel. Ah. foog naa loolu mooy indi coow bu bëri ci wàllu troisième mandat bi. ok li mu ciy wax euh, loolu Kandé. Mm. ci man benn bi. question individuelle. Mhm. fa am loo xam ne question individuelle la yow tey Cheikh Tidiane Kandé boo ne woon da ngay nekk candidat 2024 kenn mënoon a tere nga nekk dans 2024 voilà tant que yaa ngi remplir conditions yi nga xam ne <laughs> constitution bi teg na ko mhm. dégg nga beneen bi loolu euh, loo xam ne man dama ko xalaat parce que dama ko dund ci ay yeneen réew yi nga xam ne jot naa fa dëkk wala jot naa fa liggéey problème mu troisième mandat bi ñun ñi euh, pays africains yi ñu ñoo ñu ñoo ko jël def ko loo xam ne euh, beneen beneen dañ ko dañ ko jël def ko priorité def ko un sujet de débat boo xam ne xëy na munoon na bañ a nekk un sujet de débat à ce point là mhm. parce que li am solo li ñu waroon njëkk xool mooy transparence des élections mhm. dañu war a assurer wu que bépp élection boo am Afrique teg nañ ko ci yoon que képp koo xam ne fal nañ ko mhm. askan bi ko fan amul ay ay ay ay ay juñ njaaj yoo xam ne am na ci biir Euh, processus électoral bi. Hmm. loolu bu ñu ko amoon mais du ñu du ñu sax. Euh, di xalaat di werante ci wàllu troisième mandat. Hmm, am na ay réew yoo xam ne euh, seen seen seen seen président yi askan bi da leen di fal di leen falaat. Hmm. mun naa waxuma la sax dëkku Afrique yi. parce que tey am na ay dëkk Afrique yoo xam ne ñu ngi leen di ràññee mais mais boo jëlee non Russie moom beneen cas à part la peut-être <laughs> mais boo jëlee Allemagne tey Angela Merkel fu mu nekk nii elle a passé la main Angela Merkel toog na Allemagne yi di ko fal mu nekk chancelière euh, allemande bi. waaw mais loolu constitution Allemagne moo ko ko may. te yàqul dara ci réew mi moo ci dara. Mm-hmm. donc foog naa de il faut ñu dellu si xel yi dellu si xalaataat parce que Afrique li ñuy gaañ tamit mooy mimétisme. Mm-hmm. mooy ñun dañuy dañuy xool rek copier rek te dañuy fàtte ne te dañuy fàtte ne dëkk mm-hmm. bépp dëkk dafa am benn processus historique bu indi. lii nga xam ne foofu la ñu àgg mooy inspiré moom moo lay moom moo tax mhm. tey ñu décidé nii la ñuy voté lii mooy euh, lii mooy le nombre d'années yi nga xam ne la ñuy fal seen président ak lii mooy le nombre de mandats yi nga xam ne dañ koy jox président mhm. ñun nag xooluñu suñu processus xoolu ñu suñuy suñu suñu suñu suñu xooluñu sax mhm. suñu suñu suñu réalité culturelle yi am na yu bëri yoo xam ne bu ñu ko xooloon xëy na dinañu soppi ñi nga xam ne la tegee suñu suñu ndox yi mais nag loolu dañuy nangu ne euh, foofu la ñu toll xëy na bu ci kanamee dinañ ko gën a xoolaat dinañ ko gën a gëstuwaat mm-hmm. pour mun am ay constitution ay loi yoo xam ne dañuy adapté woo suñu réalité euh, dëkk yi historique ak culturel moom laa lay wax donc mm-hmm. pour pour jeexal ci question boobu rek foog naa euh, président wax na ci am na loo xam ne moom bu ci tolloo dina leeral askan bi parce que munoo ko tamit taxaw ko rek ne ko yow léegi léegi laa bëgg nga reelal ko léegi laa bëgg nga reelal ko man tey mun naa la ne tey fi ma toog yow jan ak yow je suis pas candidat en 2024 mais ça ça m'engage moi mm-hmm. du dëgg mm-hmm. yow tey mun nga xool euh, mbir bi ne ne yow yaay nekk prochain président Sénégal <laughs> donc donc coow boobu daal je pense que d'ailleurs le président sax dem na ba ne moom lui ce qui est sûr et certain que il ne fera jamais quelque chose boo xam ne c'est c'est c'est dafa opposé wu ak li ko constitution bi di may loolu c'est c'est c'est clair déjà waa ñu ñu nekk ci contexte boo xam ne tamit euh, kii di président de la république euh, son excellence Macky Sall moom la ñuy dënk en tout cas présidence su Union africaine euh, yow nga xam Afrique nga tukki xam ni dëkk yi di doxalante seen biir loolu ban apport la déjà ci ñun suñuy réew ak par rapport ak suñu diplomatie. waaw déjà euh, foog naa loo xam ne dañu war a félicité wu ci loolu la parce que pour ñu dénk la Union africaine bi yëpp fu mu nekk nii dafa fekk dañ la ciy wóolu moo ne nga loo xam ne mun nañ la ko dénk. Mm-hmm. mu di nag lu am solo parce que ku xam Afrique xam histoire wu Afrique aussi. Mm-hmm. di nga xam ne intégration africaine. moo mun a euh, faj lu bëri nga xam ne tey mi ngi daal dëkku Afrique yi mu ne mu di tamit lu diis parce que Afrique foog naa tey moo ëpp problème ci continent boo jëlee continent yëpp Afrique ci ëpp problème. Mhm. problème sécuritaire problème sanitaire problème économique. Mhm. donc euh, loolu moom ñu ngi ci masawu coono en avance euh, <laughs> président. Mhm. di ko ñaanal yàlla yàlla woyofal yéen gi mais di loo xam ne tamit euh, man gëm naa ne euh, mun na gën a yëkkati euh, maqaama Sénégal. Hmm. parce que tey mu ngi tombeek par exemple zone de libre-échange continental africain bi. Hmm. nga xam ne teg nañ ko. Hmm. di loo xam ne depuis création organisation unité africain bi en 1963 à Addis Abeba amul leneen lu gën a jublu ci wàllu intégration africaine. te boobu. def nañ ko signé nañ ko léegi li ci des rek mooy implémentation bi mm-hmm. nuñ koy doxalee ba mu nekk euh, réalité loolu nag wàllu joodu tamit secteur privé def ci am wàllam mm-hmm. donc mais ñaan président en tant que future euh, futur mais pratiquement jeex na léegi eggsi nañ ci mm-hmm. euh, président de l'Union africain na ci boole secteur privé sénégalais bi mais secteur privé africain bi en général loolu ñu ngi ko ci tàllal loxo bu baax jokkalante bi di gën a yomb parce mm. que intégration bi xam nañu ko essayé nañ ko intégration politique bi euh, lu lu xam ne lu xaw a metti la am nañ ci ay jafe-jafe yu bëri mais intégration économique bi pratiquement mun naa ne tey am nga ay chef d'entreprise yoo xam ne ñi ngi Nigéria waaye ñi ngi Sénégal ñi ngi Cameroun ku mel ne Aliko Dangote mm-hmm. euh, ñun tamit sénégalais yi ñu war a jublu ci loolu mm-hmm. mun a di exporter suñu expertise di exporter suñu mën-mën ba ñu ñu ñu di d'abord di nga ci am ndam en tant qu'entrepreneur te di nga faciliter échange yi entre pays pays africains yi donc vraiment di rafetlu bu baax a baax a baax euh, lii nga xam ne suñu président mi ngi ko waaj jiite di Union africaine di koy ne ñun pare nañu ànd ak moom ci ci ci liggéey boobu parce que dañu gëm panafricanisme dañu gëm de euh, intégration africaine mooy mun a indi kii bi xam nga sànq yaay wax wàllu énergie bi ci wàllu ZLECAf dañ ci am tamit intégration au niveau énergétique donc loolu tamit dafa di loo xam ne dina permettre ñu mun a euh, li wax les pays avantages avantage comparatif mm-hmm. ñu mun a am euh, une économie plus solide plus compétitive mais aussi euh, une production d'énergie bu nga xam ne moo à moindre coût c'est important parce que c'est un marché marché il faut considérer l'Afrique comme un marché mmh. unique un milliard trois cent millions d'habitants loolu moom voilà voilà boo ko amee <laughs> mën nga am euh, ndam rapidement mm. euh, lu mel noonu waaye ngi ku gis ni nga soloo xam ne même si l'habit ne fait pas le moine mais on reconnaît le moine par l'habit mm-hmm. que jullit nga nitu aada nga ci sa waxin ci sa comportement ak yooyu noonu euh, temps yi ñu sulli benn question boo xam ne c'est une question à la aux homosexuels gis nañu démb sax benn avocat bu génn ne yëfu la ak yu mel noonu euh, ban jàngat nga ci am déjà en tant que humain sans affaire question religieuse waaw xam nga damay dellusi ci sa question précédente bi ak ni la tontoo ci loolu mm. dañu war a bàyyi mimétisme mimétisme ci boppam nit ki sa environnement sa dëkk sa jaar-jaar sa culture moom nga da nga koy jox cër boo xam ne loolu moo lay permetre nga mun progresser. Mm-hmm. suñu culture ak suñu religion parce que fii mu ñu jëlee Sénégal majorité jullit lañu mais suñu mbokku euh, chrétiens yi tamit dañ leen jox seen wàll bu mat sëkk. Mm-hmm. Euh, ci ci biir ci biir Sénégal mais Sénégal diine moo fi dox. Mm-hmm. laïcité ci fonctionnement la mais dans la réalité laïcité mooy. nga mun a permettre chaque religion ñu épanouiru de manière égalitaire mm-hmm. mais religion yëpp gëm naa ne lépp lu jëm ci li nga wax léegi ni homosexualité dàq nañ ko dàq nañ ko donc position bi foog naa wax nañ ko fii suñu kilifa yi wax nañ ko fii suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi homosexualité du loo xam ne war nañ ko mun a accepter fii ci Sénégal mm-hmm. non c'est simple loolu moom je pense que leer na mm. euh, ci ci ci bopp nit ñi mm-hmm. mais du xam nga euh, Cheikh Tidiane mm-hmm. dañuy nangu tamit ne adduna bi am na nu muy doxee dafa am ay lobby yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bi ñoom ñooy jéem a ut nu ñuy utee bunt boo xam ne mën nañ ci jéem a teg pression réew bu mel ni Sénégal mm-hmm. ndax xëy na suñu doole économique euh, tollooloo ak yenn yi mais dañu war a taxaw tem xam suñu valeur xam suñu culture xam li nga xam ne moom la suñu maam yi ak suñu waajur yi bàyyi fi pour mun a téye ci loolu waaw parce que boo nit boo amul boo amul ren rek boo amul foo kiyee rek ngelaw bi mun na la yóbbu waaw da ngay neex da ngay neex daaneel euh, déjà on arrive à la fin de cet euh, lan ngay tëjee si waaw euh, di leen sant bu baax ci occasion bi ngeen ma jox tey ma mun waxtaan ak seen seen ñi nga xam ne ñi ngi leen di topp di leen encourager en tant que média parce que da am benn rôle bu am solo. ci euh, wàllu développement. Euh, di di wax sénégalais yi ne euh, jot na dafa jot na sax foog naa ñi ngi ci sax ñu jël notre destin en main Sénégal élection locale yaa ngi ñëw nit ñi dañu war génn mun a voter parce que ci développement Sénégal lu ci bëri ci collectivité locale yi la war a jóge mm-hmm. parce que boo bu ñu jëlee tey gox yi nga xam ne ñu ngi fii je pense on a 557 communes plus 45 cinq euh, départements. Mm-hmm. yooyu nii bu ci ku nekk jógoon ne léegi man damay euh, xool nu may liggéeyee ci sama gox liggéey sama collectivité territoriale pour ñu mun a avancer di nga mun a gis un changement au niveau du Sénégal. Mmh. au niveau national nag am nañu ay perspectives loolu laay wax nit ñi nañu bàyyi autoflagellation bi. autoflagellation mooy di dóor suñu bopp rek di dóor suñu bopp ndax am nañu perspective yu baax wax naa ko au niveau énergétique am na yu ñu fi jot a def pétrole gaz bi ñëw on prévoit qu'en 2023 suñu taux de croissance dina dépasser les 10 pour cent néew na ay dëkk ci àdduna gi yoo xam ne mun nañu ne am nañu taux de croissance 10 pour cent incha allah mm. parce que nag gis nañ tamit li fi jaar mbas bi ñu demoon nañu ba am ay tour de croissance yoo xam ne cinq 6 pour cent la woon mbas bi mbas mbas bi mbas bi mbas bi delloo ñu gannaaw loolu nag dañuy nangu dogalu yàlla mais incha allah bu euh, bu ñu yàlla ja kiyee euh, bu yàlla defee yëpp jaati yoon war nañu mun gis suñu dëkk bi di avancé di wax tamit jeunesse su Sénégal tijji leen seen bët yi ubbi leen seen nopp yi am na yu bëri yoo xam ne nit ñi dañuy yàq xel yi mais euh, réalité bi mooy lan mooy tey da ngeen war a wu. Mm-hmm. man nag du damay insister du bëri ci formation. professionnelle. Mm-hmm. formation professionnelle ñu xool filières yi nga xam ne suba Sénégal am na fi ay ressources yoo xam ne ñoom buñ ci jàngee mun nañ ci am liggéey. Mm-hmm. parce que dugg filière juste parce que dugg nga filière dugg université juste parce que nee nga. maa ngi université mais boo génnee doo am liggéey. bari na fi dafay day day waaw. Uh-huh. te loolu ñaanuñu ñu ko yàlla. c'est donc je pense que am na benn euh, réflexion boo xam ne même au niveau des jeunes tey war nañu mun a ñoom tey lépp a ngi ci ci ci ci ci kii ci ci réseau yi ci ordinateur yeeg ci internet bi. Uh-huh. am na yoo xam ne ñoom mun nañ ko gëstu xam ne Sénégal am na lii ak lii ci ressource. Euh, pays en en développement la. dina soxla lii ak lii dina soxla lii ak lii. surtout la transformation des produits. voilà voilà voilà voilà mm-hmm. voilà. donc di wax ne euh, dëgg-dëgg man tukki naa gis naa lu bëri euh, nañu bàyyi di di kii suñu bopp. di di di wàññi suñu bopp. Mm-hmm. Sénégal am na yu ñu fi jot a teg am na yoo xam ne mi ngi ñëw incha allah ñu yàlla jàppale. dinañ mun a àgg Sénégal dina mun a avancer. merci beaucoup mbokk internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ak beneen invité fii ci senego point com. jërëjëf jërëjëf